ci la ngeen jëf liy ràmm ngay bëgg a yegg ca ñag ba suur soi nañu liy direeku di ñëw xeeñul neex cas communautaire yi ñuy dégg ci coronavirus bi bu dakkul du jur jàmm ne bi jàngoro ju duggee ci réew mi ak léegi cas communautaire yi am démb musu fee am juróomi cas transmission communautaire ca Louga la fa am journal bi dañu dalul am xel ne commerçant ba fa amee coronavirus bi wàll na yaayam ji ko jur jàngoro ja te moom rek la ñu xam ne waa ca dëkk ba les économies bu weesoo yaayam ji mu wàll coronavirus quarantaine ber leen ca dëkk ba ndax nee nañu dañoo am ak waa contact journal bi wax ñu it ne cas communautaire yeeg ni mel ci réew mi guddi yi moo jaaxal ñëpp grand place nañu li jaaxal ñëpp dafa jommal waa Kër Massar ne gox ba dégg nañ ko mu yoxuk jaaxleem ginnaaw juróomi cas communautaire yu fa jotaam rond Kër Massar gi ñu doon ragal mu doono bombe sanitaire bu mën a kalaate ci kaw askan bi nee nañu kilifa yi lijjanti nañu ko ba dajeeg dajaloo amatu a teel a jël seeni matuwaay ñàkk seen bopp libération nañu cas communautaire yi ñooy jur jàng ji jamono ji ci coronavirus bi ndax ci diirum ñeenti fan rek wàññi nañu fukki cas communautaire ci réew mi réew mi di Sénégal Sud Quotidien nañu boo boolee li fa am yëpp yëpp ci cas communautaire ñoo ngi toll ci fukki cas ak juróom-ñeent li ñenn ci askan wi jikko woote baaxul Sud nee nañu ba léegi juguñu ca gargot yi tey lañu fi gën a wullee ñaay sur sars yi ci oto yi ñoo ngi ne kurul ci dëkk bi ñu bari hygiène waxuñu ci dara dandante gi ñu leen sant defuñu ko am na sax ñuy làqatu di organiser ay soirée fii ci Ndakaaru quotidien moo ko bind bindit ne bàjj na gox yeeg ASC yi soobu nañu ci xeex bi docteur ali Waly Diouf bu ministère de la santé ne ñu ci xët mu njëkk suur li xel mënut nangu moo di ñuy terey dajaloo dem sax ba di ko tere ci barabu jaamukaay yàlla yi bu nuppi boo demee ci marché ak place publique yi di fa gisi rassemblement vox populi nañu masque yi ñuy takk bu ñu bëggee cas communautaire yi wàññeeku ci réew mi in fokk dañu koy faratal forcé ñëpp ñu takk ay masque yéene kaay bi nañu ca Tambacounda moom gouverneur ba tàmbali na ko nee na ku bëgg a demati marché takk sa masque Macky Sall mu takk ay weer yaram di wax bay joxoñ photo boobee moo nekk ci mu njëkk l'observateur Macky mu mer la ñu xëy di tegal li ko merlo yéenekaay bi nañu bokk na ci hôtel yi mu ne woon nañu leen jox docteur yi ngir ñu mën a am fu ñuy ber nit ñi te ñu bari defuñu ko ñooñee ay daana ngi soleil national nañu wax na it ci ñu taxaw ci jàppale gi ñu war a jàppale ñenn ci ñi askan wi seen loxo jotul seen ginnaaw ci jamonoy covid gi nee na leen lu mu gën a a duy waykat bii di Souleymane fay li muy ñaan moo di ñu bañ a yegg ci confinement ndax jàpp na ne bu ñu ko defee musiba lay jur ci réew mi professeur Bamba Kane ni ñu ci la tribune bu dee askanu Sénégal bëgguñu ñu yegg ci confinement total kon dañoo war a soppi suñu doxin